Euh, hashtag euh, Adja je suis Adja Ndiaye di circuler ci euh, euh, réseaux sociaux yi loolu day wane ne rek carrément que li fi xew ñëpp dañ koy naqarlu parce que li fi xew également tamit nekk na loo xamante c'est pas normal parce que Adja dafa nekk koo xamante ne dañ ko yónni woon ci terrain bi pour mu def li ñuy wax euh, liggéeyam foofu lañ ko agressé juróom ba juróom benn agent de police daal di koy dugal ci fourgonnette bi daal di ko fay dóor en tant que reporter mais surtout également mu di jigéen démb fanaan na guddeem bu njëkk hôpital tay bañu xeyé tay tey nee ñu état bi dafa xawa détérioré wu parce que daf doon euh, vomir manam wëcc lu ñuy wax deret loolu day wane né carrément kon dóor yi dafa dafa dafa dafa metti alors tay buñu gisé le collectif des cameraman tay ñëw devant euh, les locaux Actu pour se solidariser ci agression Adja Ndiaye ñun en tant que euh, Dakaractu ak victime de cette agression dañ koy rafetlu daf ñuy rek gën tamit wane leen corporation dafa war nek li manam solidarité parce que c'est vrai que tey Dakaractu la démb avant ñun amna na yeneen cas fi amone certainement suba yeneen cas également dinañ am ooy oh, loolu la ñu naan carrément c'est c'est c'est c'est pas c'est pas c'est pas normal c'est anormal et dañ ci rek profiter également pour euh, interpeller Ali Ngouille Ndiaye nekk jëwriñ weeru kaaraange bi réew pour bu rek carrément il est temps que ñu arrêter di di di mater la presse c'est comme si la euh, la police dañu naan informé pour ñu carrément dem leen ngeen di dóor. Euh,

duñu ko bàyyi au nom de la liberté de la presse au nom également de toute la corporation moo bureau bureau Dakaractu bi direction bi euh, commettre na avocat yam mu ngi ci papier et que ñun dañuy porter plainte contre cette injustice parce que nous ni mel de ko faire. ko duñu ko de nous te tamit ñuy wax rek Aly Ndiaye mu gën euh, main dossier en main pour me gën taxaw li nga xamanté mom moy les agressions euh, yu reporter yi di di di subir te ñu xalé leen carrément loolu nek na lo xamanté c'est pas normal il est temps que euh loolu dakk fii rawatina ci pays bi nga xamanté né dañ pays de droit la pays buy prôné liberté d'expression en plus on célébrait la journée mondiale de l'accès à l'information ce qui prouve également qu'il y a y a y a y a faille et que là également le ministre de l'intérieur Mme Mme Matouaï, fait une matuwaay te la en tout cas il dina euh, a une agression bi ba parce que nous, avons une agression comme nous au nom de toute la presse au nom de toute la corporation